sénégalais yoo xam ni ñi ngi Chine jamono ji dañu am problème passeport euh, bu ñu moytuwul euh, ñi ngi bloqué foofu banque yi tamit euh, seen ay compte bloqué nañ leen te ñi ngi wax waxi rapatrier leen mu yamook nga nekk fii naka la def ba ay sénégalais nekk Chine quand même war a mën a bañ am passeport waa mën na ko rek rapidement cest bi corona bi duggee ba léegi mm-hmm. état bu nekk dafa souverain mm-hmm. ci nooy duggee réew ak nooy génnee mm-hmm. en réalité mission yu bëri préparé woon nañ leen pour dem mais li am mooy dafa am ay yi Chine teg souverainement voilà souverainement par exemple Chine doo fa dem te jaaroo vol direct benn amul fenn fooy def escale dem Chine dañ ko teg comme restriction deuxièmement ces vaccins su parewul boo jëloon benn mu des trois mois nga doo dugg Chine troisièmement boo fa ñëwee balaa ngaa def dem fenn yaan yaan du euh, vingt et un jours de quarantaine yoo xam ne da nga koy toog balaa ngaa liggéey y a beaucoup de restrictions qu'ils ont mis en place donc les en Chine donc on très conscient de la chaque jour mu woo ma mm. mais li ma bëgg wax fii rek pour ñu xam comme egg na ba fii mooy le problème je ma joxe date mais il est réglé mm. en réalité man je peux dire ici qu'il est réglé et que bientôt on aura une valise en Chine pour régler la Turquie la Turquie ma mm. am na benn mission bu fa demoon ak Tunisie peut-être y a des euh, mooy ce que je dis corona bi mu ñëwee ba léegi y beaucoup de restrictions les états ils ne c'est est-ce qu'ils ont bien bien sûr. Okay. aujourd'hui aujourd'hui je peux pas parler au nom du. Euh, ministère des Affaires étrangères aujourd'hui j'ai échangé avec le secrétaire d'État Moïse Sarr oui. que je que je salue mais ils font tout ce qu'il est possible de faire pour régler ce problème là. gis naa ko la mun ko laaf. parce que c'était c'était vraiment pour pour aider ces gens là. pour pour aider vraiment les étudiants qui sont là-bas. problème mu euh, bu Ndiaye Diakhaté li mu wax la am comme difficulté pour les déclarations. de patrimoine obstacle de taille bu muy rencontrer eh, eh bien naka lañ ko mën a comprendre hmm? malal déclaration de patrimoine ba léegi jafe-jafe sur mille et quelques yu waroon a def il y quatre cent et quelques yoo xam ne def guñu waaye eh, moom mooy je parle les chiffres Ça veut dire que tou simplement on met des organes de contrôle. Elle a la volonté, mais elle n'est pas soutenue dans, sa volonté. Charles, déclaration de patrimoine, difficulté. Bouba, passe. Je pense qu'il y a des sanctions qui doivent, qui doivent accompagner oui, ça. C'est aussi simple que ça. C'est la gouvernance. C'est un aveu d'impuissance. Maintenant, mm. moom def na li mu war a def. Oui. Mais il n'y a rien de nouveau sous le ciel parce que lii la soxna Nafi Ngom kee te rencontré woon ba ñu. Ali ba mu coûté ko li mu ko coûté. ali ku mu woo boo wuy jiwul lu ci yoon wax ku mu woo ne ko kaay def ko boo wuy jiwul lu ko yoon lay jëli de rëq sa ndigg aja ay ca non man je passe allez bu bu mujj bi bu mujj bi enfin de la politique euh, enfin pour une fois Burok Sow xamoon nañ leen <coughs> président de dafa ne am na golo dina léegi Gloria yokku ci mu gën a neex ñu bëri nag di laaj kan mooy Gloria boo si yokkee mburaakee biir hmm. malal kan mooy kan mooy Gloria ça je sais pas moi en tout cas Gloria daal neexaayu cosaan amul morom dang la fi <laughs> papis maanaam da ngay rab Pape Djibril oui en fait euh, man li ma intéressé ci visitam bi mooy ISEP bi mu demoon mhm. visite ji maa ngi ko doon wax keroog vendredi passé et que <coughs> c'est c'est c'est une idée formidable mhm. mais nañ ci liggéey liggéey bu am solo parce que ISEP boobu lañ ko créé sur le papier dama lay wax rek quand il s'agit de questions sérieuses mhm. comment l'État peut traîner les pieds L'ISEP a été créé sur le papier en 2013. Mm -hmm. Pose première pierre en 2015. Mm -hmm. Et les bâtiments ont été réceptionnés janvier bi passé. Mm -hmm. Et quand il s'agit d'autres choses, ils peuvent être très véloces et très fast rapides. Track, fast track. Donc loolu aussi ñu bàyyi ko xel mais mhm. li ma intéressé c'est c'est plus la visite. Mhm. li mu demoon inauguré ji mooy euh, kii maintenant il faut qu'on ñu sori ces questions politiciennes là. Mhm. surtout moom. mu ñu góorgóorlu ci ñoom ñëpp ministre yi ak président de la république parce que la mu fa wuti woon lii dafa mujj noyé lu am solo la mu fa wuti woon. la ah mooy kan mooy li ci war a mu gën a <laughs> ah, man de en fait en de communication. Hmm. waa Gloria moom xaw ma affaire bi dafay def effet bu baax. Ah, voilà waaw mais mais cest à bu ma doon moom ci ñi koy ci ñi koy kii. bon peut que def la nee naa ne président yi saa yu ñu improvisé wax rek soit dañuy wax lu baax wala ñu wax njombe. suñu improviser bu ñu génnee seen discours si la ñuy wax kii parce que bon su ma doon président naa ne naa ci yokk meew pour yemale yëpp waaye bi mu nee Gloria moom xam naa ni waa. waa meewu kii meewu kii nu mu tudd meewu Alib. nañ ak ñeneen ah nee nañ pourquoi waxuñu ah, kii waaw xam nga waaw bi honnêtement quand j'ai écouté ah, non quand j'ai ah écouté j'ai non en terme de non non en terme bu waxoon na wax meew mm-hmm. waaye bu nee Gloria rek doy na waar daal mm-hmm. mais bon ah yow ba léegi xam ah? man xam naa gloria bi. waaw ah. ah, yéen mais ma xam ban mooy gloria bi. boo leen di wax ma koy wax. l'autre fait marquant peut-être à souligner qui aurait pu être un gis-gis. mooy jaale ji na jaale ji na Khalifa Sall. dans la waaw d'accord mais mais non déedéet daa mel xaw naa yóbbu. non oui ma déedéet déedéet déedéet ne me fais pas dire ce que je n'ai pas eh, dit. parce eh, que nga xam gloria bi président Macky Sall di wax na ma laaj. waaw. ah kon léegi muy ma ut leen numéro Bouba Ndour ngeen am ko nee na xam ne ah? ah? ah? alors ñu leen di gërëm di leen sant vraiment ñu ngi leen di gërëm yéen ñi àndoon ak ñun ba heure bi